jàppante yi am ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar am na ñaar ñoo xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu yu metti ba ñu rawali leen hôpital étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ca master 2 bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tey ji nag xëy nañu tàngal jër gannaaw nag ay manifestation yoo xam ne rek doon nañu ko amal ngir sàkku ñu jox leen seen ay bourse d'accompagnement jamono ji nga xam ne boobaak léegi fayuñ leen ko lu ëpp fukki weer ak benn gannaaw yëngu-yëngal yi nga xam ne jot nañu ko amal bu sukkandikoo ci ki yor seen kàddu di xam le ne am na ci ñaar ñoo xam nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi jot nañ leen gaañ yu metti ñoom étudiants yi nag fas yéene wéyal bi la xeex ñu ne nag bu fekkee ne ak saafara amu ci dinañu gën a taral mbir yi fii ak waxtu yi ñu mal bokk na ci tamit li nga xam ne ñu ngi koy ñaaw la amul benn kilifa boo xam ne nekk na ci université bi dugal na loxoom ngir fay taal bile di jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel jamono ji nag étudiants yi jafe-jafe dëgg lañ ngir ñu jàmmaarloo ko ñi xam ne ñoom ñoo di takk der yi ndaxte ay takk der yu bari yoo xam ne tasaare nañu leen ci buntu université bi